tax ñi woote woon dañoo jàpp ni Sénégal boobu ba léegi ba euh, bañ ko taxawalee ba tey 1960 ba léegi dafa am njuumte bi nga xam ne moom la ñu def bu ñu ko doon xool ci athlétisme dañuy wax ne Sénégal dafa def faux départ am ni mu tàmbalee daw joxe gu ñu woon faux faux joxe gu ñu woon euh, misaal gi faux départ lu ko waral mooy dañoo tabax dëkk bi nga xam ne dañoo tënk Euh, forcé ñu nañu lépp luy ngëm-ngëm ak seen aada ak seen pas-pas war nañ ko jëfandikoo pour doxal dëkk bi ñu jàpp ni loolu nag erreur la njuumte la euh, ñu xool saytu xool dëkk tubaab yi xam ne sax ñi ñu jàngal loolu ñun lool foofu la ñuy roy ñoom dëkk yooyu ñoom dañoo am ay parti chrétien yaa xam ne dañuy jiite am ay parti musulman yu fa nekk tudd naa ko mel ni français xam ne l'UDMF est un parti démocrate musulman français yi xam ne dañu fa nekk di dem si élection yëpp des partis chrétiens moom kenn leen lim parce que am na sax léegi union mondiale des partis démocrates chrétiens ba ci États-Unis ba ci Allemagne ba ci France ak fu ne nagam ñoom tubaab yi xam nañ lan mooy solo ngëm-ngëm ak pas-pas naka lañ si war a tibbee pour mën a doxal penc bi massa kon ñun am xalaat am ñu jël suñu loxo ñun seppi nañu islaam ñun islam waruñu si sukkandiku waaye mu ngeen sukkandiku ci ay saay-saay mu ngeen sukkandiku si ñi nga xam ne dañoo dañuy yàq adduna bi fii am nañ droit sukkandiku ci Marx pour taxawal parti waaye kenn amul droit sukkandiku si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu taxal parti ñun gisuñu nit bu gën a maandu bu gën a jub bu gën a leer yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu jàpp nag ñun am nañu participation bu mag bu ñu la andi Sénégal euh, ci ci tibb ci jàngale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lii moo tax ñu taxawal ñun suñu suñu kuréel xalaat un modèle euh, endogène bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee juste milieu muy modèle bi nga xam ne bàyyiwul économie bàyyiwul koom bàyyiwul monnaie une euh, gouvernance une institution une société bayiwul sax droit ndax japp ni sax yoon di doxé ak des suñu kaw suñu donc ni kon réforme de profondeur des arab di wax al islah nous lañu japp ni mom lañu Sénégal ndax existant yu tedd nañu euh, nañu